message bi ñu mën ko waxtaane parce que euh, yaakaar naa réew mi dafa toll foo xam ni naam sax maa ngi dégg xale yi naan discours yi jeex na déclaration yi jeex na jëf rek moo des je suis absolument d'accord ak ñoom te loolu itam mooy message bi nga xam ne moom lay porter à chaque fois bu ñu nekkee ci kuréel yi ñuy war a waxtaanee mu di conférence des leaders de Yewwi Askan Wi mu di ci suñu plateforme bi di avenir Sénégal bi ñu bëgg mu di ci yeneen i kuréel yi nga xam ne yëpp dama ciy intervenir a chaque fois moom laa leen di wax ni réew mi dafa am fu mu toll foo xam ni non seulement nit ñi dañu war a jëf mais dañuy xaar ci bépp pàccu réew mi képp koo xam ni sénégalais nga yaa ngi yeewoo ci biir Sénégal wala yaa ngi yeewoo bitim réew te nga am a cœur le Sénégal maanaam Sénégal nekk ci sa xol Sénégal jaral la lu nekk parce que bu fekkee mënuloo am beneen réew mënuloo taxu feneen mënuloo dëkki feneen wala boo nekkoon feneen itam ngir sa liggéey wala yooyu sa xel ak sa xool yépp mu ngi fii Sénégal maanaam mbokki diaspora bi boo yeggee foofu Sénégal rek moo la yitteel te nag Sénégal toll na foo xam ni tey il est important ñu waxtaane ko wax ko mais jëf ko surtout pour sauver le Sénégal parce que Sénégal dafa toll foo xam ni tey ci sauver ko rek la ñu des parce limite yépp dépassé nañu ko bu ngeen gisee li fi xew démb ma taxaw ci tuuti ndax ci suba ba ci guddi ñoo ngi koy suivre te gis ngeen loolu bu ñu commencé ci fin wu journée bi ba 23 heures ñu ngi ci clinique bi nga xam ni foofu la président Ousmane Sonko nekk mu suñu xarit mu suñu frère suñu allié politique di leader de l'opposition sénégalaise ñu dem seeti ko ci lii d'hôpital bi mu tëdd muy image bu terrible pour une démocratie démocratie bu mel ni Sénégal ak fi mu jaar ak trajectoire am ba fi mu yegsi bu ma jëlee rek les dix dernière années ñun ñii dañu taxawoon kii nekk tey à la du Sénégal di noot sénégalais yi di opprimer sénégalais yi di blessé sénégalais yi di rey sénégalais yi kooku yaa 11 ans ci ginnaaw dafa doon taxaw ñu taxaw yeneen démocrate taxaw ñuy xeex pour la république pour l'état de droit et pour la démocratie mu am discours yi mu doon yëkkati ci bu ñëwee comment il va préserver la démocratie sénégalaise ni nga xam ne noonu lay joxe sénégalais yi seen àq ak seen yelleef préserver liberté yi préserver droit aux citoyens yi fexe ba justice moom boppam am indépendance am fexe ba consolider démocratie bi nga fi bi mu nga xam ne moom la fi fekk mooy discours bi mu doon tenir en 2011 ba 2012 te ñu ko doon ànd ak moom ci xeex boobu sur le terrain ku ne woon sénégalais yi 10 ans 11 ans après di ngeen ñëwaat xeex même xeex boobu kii leen defoon promesse yooyu trahir ko tey mu wëlbatiku nekk l'oppresseur mu wëlbatiku nekk kii boom sénégalais yi sénégalais yu bëri duñu ko gëm te rendre ñu justice ñi nga xam ni ñàkk nañu seen bakkan mais li ma doon wax démb bi ñu gisee président Ousmane ko tëdd fi mu tëdd képp kuy démocrate képp koo xam ni kii mas ngaa xeex pour Sénégal am nga lu la naxadi ba ci sa biir xol c'était dégradant pour le pays parce que le leader de l'opposition statuam s'est consacré ci biir constitution bi dafa am ay droit yoo xam ne pour démocratie taxaw yooyu dañu ko koy nangul mais ni Macky Sall di doxale ba ñu jël ko agressé ko droit am yépp yi mu waroon am en tant que opposant en tant que leader de l'opposition mais en tant que être humain sénégalais simplement ñu xañ ko ko privé ko des droits les plus élémentaires y compris droit wu mu jóg di dem wuyu ji justice pour choisir fi mu war a jaar ñu nangu yooyu droit agressé ko violenté ko gis ngeen ni ñu ko doxale mais foofu laa bëgg taxaw tuuti ndax foofu la gravité wu cas bi nekk tey dañu toll foo xam ni ba mu nekkee fa mu nekk di dem ña ko wër ba agressé ko ba violenté ko ba def ko lañ ko war a def démb rek maa ngi ciy lancé appel kenn mënu wax ni ñooñu ñëpp ils sont des représentants de la force publique légale et légitime du Sénégal ba tax na bu ñu gisee ñu def ko ñaawteef bu mel noonu ba tey ñëpp di ci am xel ñaar ak tiitaange ci état de santem bu dégradé wu considérablement ndax ñëpp gis nañu li nga xam ne nii sànni nañu ko ko sànni ko avocat Ciré Clédor lii te mu mën a nekk lu ne foofu nag laa bëgg insisté ndax ki ma gis mu tëdd journée bi mu passé li ñu njortu ni def nañu ko bu sa xel demee tuuti te nga xam ni àddina di doxe dangay gis ni réegi am na réew yoo xam ni ci wàllu seen dictature ak seen xeex ak ñi ñu jàpp ni seeni ennemi lañu am nañu yoo xam ne mën nañu ko def nit maanaam ci noyyeem wala ñu laalal ko ci yaramam loo xam ne dina ko yàq ba faw loolu nag ku gis li am démb am nga ci tiitaange te am nga droit interroger wu ba tax na bi ñu gisee tey li xew ak fi état de santé am toll ma bëgg ñu jàpp ni tey toll nag foo xam ni maa ngi koy wax Macky Sall exigence la exigence la gis nga dañuy wax ni démb bi mu bi mu sonnee ci ngoon ba ambulance di ko jëli ñu xaj ambulance boobu dem fa amul lu ko gën a rëy ci violation des droits humains may féliciter sax médecins yi ordre des médecins seen syndicat dañu mujj sax intervenir pour loolu mën a am mais loolu kenn mënu ko jàppee lu dul bëgg boom nit ki parce que boo ko loree mu war a faju ji nga xañ ko faj bi yaa ngi lor nit kooku te foofu la ñu toll foofu la ñu toll loolu nag moom laa bëgg a dénoncer te def nañu ko ñun ñu ngi en contact avec Human Rights Watch avec yenn kuréel yi nga xam ne ñoo ngi koy suivre bis bu nekk fii au Sénégal pour jox leen yooyu information parce que Macky Sall ci boppam la président de la République du Sénégal moom mooy nekk le seul et unique responsable de lépp loo xam ne li arrivé na Ousmane Sonko sur son état de santé parce que ñun ñépp tey ku ci nekk jaaxle nga tiit nga parce que xam nga ni li ñu ko def ragal nañu ni dina am jeexital te tax na maa ngi ñaan képp koo xam ne nii itam yaa ngi ko jege ba ci médecin yi ñu saytu loolu te ñu envisager toutes les options possibles toutes les options possibles parce que dañu am force de sécurité yoo xam ni bu ñu mënee am nañu leen infiltré doo ko weddi parce que on l'a vu ñaawtee fi ñuy def jàpp ñu ni des force de défense et de sécurité formées républicaines danañu def lu mel noonu donc lii fi nekk nañu jàpp ni c'est quelque chose de extrêmement grave may interpeller encore une fois le président Macky Sall il y a deux ans 2021 bi fi événement yi amee dafa déclenché wu toute ma communication lépp lu ma mës a wax moo doon teel koo interpeller artu ko ne ko lii ngeen yëkkati fi mu jëmee Sénégal du baax il faut l'arrêter dégluwuñu woon ils avaient considéré que c'était l'occasion de l'arrêter de l'anéantir ñu continuer li ñu def fu ñu mujjee sénégalais yi ñàkk seen bakkan réew mi réew mi déstabilisé wu te il a échappé belle il aurait pu sax son pouvoir ci jamono jooju bu fekkonte ni ñun ñii ñëpp ànd ñu reculer pour réew mi am jàmm kooku nag bu yëkkateetee lii mu yëkkati di pexe pexe yii muy def avec sa justice privatisée une partie des force de sécurité moo tax damay wax ni ñu bu ñu ko xoolee dafa mel ne force de défense et de sécurité partiellement dugal nañ ci ñoo xam ne ni nit ñi xamuñu leen ba ñaawteef yiit yi am yépp di ci am loolu nag du lu rafet ci démocratie du lu rafet ci démocratie danger la moo tax may woo tous les démocrates du Sénégal tous les républicains ñi nga xam ne Sénégal jaral na leen ko nañu xam ne le danger romb na li ñu doon wax lii raam ci ñag bi la jëm romb na fa il est temps de se mobiliser et taxaw temm nag pour arrêter ça définitivement parce que gis nañu yi xew bitim réew gis nañu ay opposants yu ñu def yoo xam ni yi ay substances toxiques neurotoxiques mu yàq seen àddina su fekkente ne loolu mooy seen pexe sénégalais yi dinañ ko digaaleeg ñoom guddi ak bëccëg donc nañu delloo ci seen xel leur et suffisament grave parce que l'état de santé de président Ousmane Sonko nit ñi wax nañ ko tey ci journée bi gis ngeen communication bi ci Pastef def ay parle il est temps que ñoom ñu mën a wax pour préserver lii nga xam ni yegg si nañ fi leur nag est grave maa ngi koy wax ci njalbeen tollootuñu ci temps wu discours il est temps qu'on prenne tous nos responsabilités boobu appel la bëggoon lancé à l'endroit du président Macky pour wax ko ne yoon bi mu jaar il n'aura jamais gain de cause et j'en profite pour féliciter les Sénégalais pour leur mobilisation surtout la jeunesse pour taxawaayam parce que c'est le seul et le dernier rempart pour sauver la démocratie de notre pays maa ngi woo toutes les forces vives les leaders de l'opposition et de la société civile ñu amaat taxawaay rassemblé wu pour tenir tête et faire face parce que foofu la ñu toll ci réew mi la république est réellement en danger parce que réew bu fekkee privatiser nañu justice bi ba ñuy obéir au doigt et à l'œil non pas à l'autorité de la loi mais à un seul homme bu fekkee dem nañu ba citoyen yi muy policier di gendarme xàmmeetuñu ki ko nekk légalement et légitimement ak ki nekk leneen réew moomu fu mu toll ci danger romb nañ ko bu fekkente ni on ne s'arrête plus bay agressé le leader de l'opposition ba muy tëdd sur un lit d'hôpital dans une situation désastreuse terrible loolu itam xamal ni réew mi dépassé na toutes les limites imaginables loolu nag il est temps d'arrêter ça parce que bu fekkente ni arrêté wuñu ko fépp fu mu jëm benn responsable mooy am mooy le président Macky Sall et loolu il aura trahi son serment te président bu trahir sa serment loolu li ko tuddee ci tubaab mooy haute trahison loolu nag mën nañ cee bañ a yegg bu fekkee comprendre na ni il ne peut pas continuer wala jéem a diriger Sénégal wala un premier sénégalais ba ñu noppi il ne peut pas le faire donc c'est l'appel que je voulais ce soir mooy wax sénégalais yi nañu yokk seen taxawaay nañu yokk seen détermination fi Macky Sall jëm xam nañu ko et on va mu bañ a yegg foofu mu jëm donc mooy le message que je voulais vous lancer mooy la communication que je voulais faire avec vous ngeen déglu ñi nga xam ne war nañu wax dinañu wax ñi nga xam ne war nañu jëf dinañu jëf su ko defee ñu am taxawaay bi nga xam ne mi boobu la ñu moom lañu war a am te moom la situation bi laaj maa ngi leen di gërëm di leen sant su ko laajee dinañu defaat yeneen message incha allah merci beaucoup excellente soirée et ñu ñaanal ñun ñëpp Ousmane Sonko pour que lii ñuy pexe ñu mën ko koo bañ a def parce que réew mi rek mooy rempart am sénégalais yi rek ñooy rempart am gannaaw yàlla merci